alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu baay ne tontu bi gënoon a gàtt mooy Isaa waxuma leen ko rek waaye lool du tegginam ak yàlla waaye tegginoog ak yàlla moo tax mu guddal tontu bi ngir tegginoo ak pay yàlla bi tabaraka wa taala waxun ne rek waxuma leen ko waaye bu ma ko waxee xam nga ndax yow xam nga li fi man te man xawma li fi yow bàyyi mu ne teggin ci la yonantu yi rawee gaa ñëpp nga xam ne kuy wax rek jàpp ne man li may wax xam naa ko am naa ci droit doo ànd ak teggin ba mukk da seet luy teggini pay bi ngay waxee nga waxee ko luy teggini mbooloo mi lay déglu nga waxee ko li teggine barab bi ngay waxee nga waxee ko li teggine kilifa gi ngay waxee nga waxee ko waaye mu ne moo tax yonentu yi ci tegginu ak péeb yàlla bi ci lañu rawee ñépp ndax bu ma ko waxee xam nga ndax xam nga li nekk fi man te man xaw ma li nekk fi yow moo gën a gudd waxuma ko rek noppi mu ne mu ngi mel ni teggin gi feeñ ci wax ibrahima alayhi salaam mu ne yàlla muy wax ne wa ida maratu fa huwa yashfini bu ma feebaree yàlla may faj mu ne li ci niru wàññeeku daf ko askan boppam ndax feebar wàññeeku la te a xam ne du feebar boppam waxul ne bu ma yàlla feebaree moo may faj waaye bu ma feebaree yàlla may faj bu waxoon ne bu ma yàlla feebaree moo may faj ku nekk xam ne ne ki koy feebar tim yàlla la waaye ba dara desul lu may tegginu rek mu jël lay wàññeeku askan ko rek boppam bañ cee tudd yàlla te loolu moom la alquran di jàngale ma asaabaka min xasanatin fa min allah wa maa asaabaka min sayyiatin fa min nafsik lu la jot ci lu baax ci yàlla la jugee lu la jot ci lu ñaaw nag ci sa borom la jugee loolu teggi ni shariatu waaye xam nañ ne wallahu xalaqakum wa ma taamaluuna yàllaa leen bind bindi seeni i bindi bind lépp lu aju ci yéen waaye lii mooy teggin moo tax ibrahima ne bu ma feebaree waxut ne bu ma yàlla feebaralee bu ma feebaree yàlla may faj te yàllaa koy feebar moo koy faj waaye lay wàññeeku ci boppam la ko jàllale lay mat nag mu delloo ko yàlla <coughs> ngir loolooy teggi ni yonentu yi ak péeb yàlla bi ku la gën a xam yàlla moo la gën a ëpp teggin ci ak ak yàlla Cheikh Ahmed Tidiane fay wax ne Ibrahima alayhi salaam boo toogaan ak moom dafa yaroo yaroo yaru ba nga foog ne yow lay yarul te da yaru bi dara warulu ko lu may teewlu gi muy teewlu teewaay ak yàlla in tuazibhum fa innahum ibaduk fa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim bàyyi mu ne aaya ji xéem na yonentu sallallahu alayhi wa sallama ba yonentu bi fanaan guddi lamu di naafila te fekk aaya ji rek lay jàng aaya ji rek lay jàng yéenay liggéey fay du baay bi si ji barahama Kossy TV am ngeen jaarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi si ji barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV